waaye nuyu suñuy soppe comme niñ ko daan defee d'habitude rek dem ba Argentine nuyu fa Mara Mbaye euh, Ibrahima mbaay ñu joxal ñu ko bokki mbaayin dànk seen yëpp nuyu suñu nijaay Cheikh seen waaye magam suñu nijaay As Mbaye ñu koy wax Alaaji Bakar seen ñu ngi koy nuyu moom it it mu joxal ñu ko bokki dànk seen ñëpp rek moom it foofu ci Brésil waaye nuyu suñu waa ji Pape Gadio nuyu bokki France yi ku mel ni soxna Abi Abiba ñu ngi lay nuyu ak Cheikhouna waaw Cheikhouna moom xam na Abi ah, da koy kii rek waaye moom lu ko mooy moom day lekk di ko bàyyi waaw Cheikhou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la wàcce sa wàcc waaye di la yóbbante nuyu ak ziara ci jawit ci mbokk yeeg njaboot gi ñëpp di ñaanal eh, soxna abi yal na yàlla gën a barkeel seen sëy te taxawu leen ci ci biir ak ci biti nuyu soxna abi Guèye waaye dem ba Italie nuyu bàcc seen moom it it mu yóbbaaleel ñu mbokki Njogob Jóob yëpp ak Njogob Njaay waaw ba ngayeen ñoom ñëpp ngeen nuyu ñu leen incha allah nuyu xaaji Abdourahmane Fall foofu ci Italie xaaji Daam Kayre waaye dem ba Espagne nuyu suñu waaji Daam Jóob ziyaar ko wàccee ko wàccuwaayam moom it mu joxal ñu ko bokki xadratu almalikiya yëpp ñu ngi koy teg euh, nu si sa loxo joxal ñu leen ko waaye dem ba Maroc nuyu Niass moom it it ngi dëkk fii ndeysaan ci wetu amitié stade amitié ci cité yooyu di nuyu talaba yëpp nag di ko teg ci loxo loxoy Abdou Aziz Sakho ak Zakaria Fofana ñu jottalil ñu ko bokki talaba ya nekk foofu yëpp ci teg yu a imma waaye dellu si ci biir réew mi nag nuyu soxna aram soxna faatu waaye soxna jébu ñu di nuyu nuyu bokki lakroos Rose yaay yeeg goro yeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nuyu Jaare waaye nuyu suñu bokki Casamance xam naa buñ ko tegee ci loxoy Issa rek mu séddaleel ñu ko waaye rawatina suñu série bii di Mama Dindi ñu ngi koy nuyu moom it di ko ziar di leen seen seen wàccuwaay. tey suñu émission di septième émission septième émission bi nag du hasard ndax ku ñuy toonee set bu nekk si septième émission ñu war ci daral tamit kilifa gu mag muy bay Mansour Pouy eh, di président Daïra Ahmadiyya bu xalif euh, général Serigne Babacar Sy Mansour moom nag mooy vice président bi di coordinateur national xam naa dañuy bàyyi rek mu nuyoo su ko defee ñu ñëw nag ak moom ci wàllu laaj yi di ñetti tomb incha allahu rabbi bu njëkk bi dinañ waxtaan ak moom ci création daaira boobu di Ahmadiyya dinañ ñëw ci activité daaira bi waaye tëjee ko nag moniteurs yi ndax ñiy waxtaan tamit ñu am solo lañ ci biir daaira yi ñooñu tamit incha allah dinañ ci ñëw waaye ginnaaw bi mu nuyoo ba noppi présenté wu su dee juum nañ ci présentation bi tamit mu euh, gàggantiwaale ñu incha allah kon Baye Mansour ñu ngi lay nuyu di la ziar la dalal fii ci Naby TV. Euh, asalaamaaleykum. gannaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu waa Naby TV yëpp xadratul maliki maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jottali nuyu ak ziaru daayiratu ahmadiya national yi nga xam ni ñun ñëpp ci la bokk ndax mu ngi ci loxo xalif général de Tidiane Serigne kër Sy Mansour comme ni nga ko waxee nag noonu rek la tëddee xëy na la nga xam ci ña ngay nuyu yëpp li ñu waroon a nuyul ngeen ko xanaa daal li des rek mooy ñu jéem a dugg ci waxtaan wi rek jéem ko tënk lu ñu ci mën a répondre ci question yi rek yàlla nañu yàlla ommatal sunu làmmañ dañu répondre nañu ko bëggee yàlla buy sunu làmmañ fakastal amiin ñu lay gërëm yow Daouda di la sant di la ñaanal yàlla ndax li yàgg nga ko sàkku ci ñun ah, waaye tey nag la ko yàlla di dogal dogal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa ñu ngi nuyu suñu mbokk seex Tidiane Ndiaye mu joxal ñu ko daayira Muxtafin ñëpp. Eh, Baye Mansour comme ni ma ko junjee sànq rek daayira Ahmadiyya kañ lañ ko créé moom daayira Ahmadiyya ak kan moo leen jox tamitu daayira boobu noonu. waaw ko créé mille yàgg nañu ko sàkku nag ci kilifa ga muy sama turandoo cheikhul xami alxaaji Mouhamadul Mansour moom nag du dugg ci dara loo xamee ni seetu ko ci biir ak ci biti mag ñi ba ñu ñëwee sàkku ko ci moom ñëw nañ fa ay yoon am na ñu ma jële ci mag ñi sax ñu ne ba ñu dem bi ñu mujjee di dem ci moom ba mu nangu leen ko alxaaji Habib Rakam ànd na ci mu ne bu fekkee ne yàlla moo tax ngeen di ko def de amul tànki gannaaw tànki kanam rek incha allahu ci kanam lay lay dem rek ñun nag booba ñu nga fa waaye am na ñu ko yore tey booba xëy na sax juddooguñu waaye loolu wane na ne nit ku nitu yàlla la bu jubboog boroomam loolu bu ko garanté loo boobu xamoon na fa mu jëm waaye ñëpp kuy yewwoo ci addina bi xam nga nit dayratul ahmad yi amul tànki gannaaw tànki kanam la am ah loolu daal ñu xam ne rek alaaji mouhamadul mansour moo ko joxe tur tudde ko dayratul ahmad yi 1952 ah loolu yéeme ne 1952 tey su doon jëmm ñu ne am na 68 ans kon mu ngi am ay ay sët ak ci biir ñëpp euh, waaw maam yi tey ñooy coordonné kon man nañu wax ndax lu am 68 ans ah wax dëgg yàlla loolu moom <laughs> day gën a jëm kanam rek incha allah euh, mu ñu fàttali leen ko tamit moom it euh, turandoom moo ko yar maam Mansour Bal Xawmi radiyallahu anhu Baye Mansour lan mooy activité daayira Ahmadiyya seen activité lan la. waaw daayira Ahmadiyya nag activité yi bari na. waaye bi ci jiitu mooy jàng jàng ndax yàlla dafa wax yonent bi iqara bismi uh-huh. xalif bi fi nekk muy sëriñ kër si Mansour uh-huh. wax na même daayira yi nga xamee ni ñoo nekk ca baas ba daayira bu nekk na ut ustaas boo xamee ne moo koy jàll di ko xamal diin bari na fu mu daan wax ñun ni bari na ñu nekk ci mbooloo yi daayire te xàmmeewuñu waman naxasa wasaada kon nag bu yàlla waxee ni fasalu ahla sikri in kuntum laa taalamun mu dellu si ci li abdourahman ndaxtere yu wax rek ni wa yasalal ulama wa yaxtadi bil mutabiin na ngeen laaj ñi xam waaye nag bari na ko xam koo xamee ni du teg tànkam ci sunna booy roy na nga roy ña teg seen tànk ci sunna loolu bu ñu ko saxalee ci daayira yi ba bu ñu jógee ci daayira yi war a ñëw daje ci Ahmadiyya loolu lañ fa fekk Ahmadiyya nag ay pàcc la xiirtal nañu ci kenn ku nekk lu xew ci gox bu mu mën a nekk rek na ci ñépp jàpp bu dee xew-xewu jàmm nañu ànd ndokkeelal ko borom xew-xew bu dee xew-xewu safaantum nañu ànd bokk ak moom xew-xewu safaan ba bu waroon a diis rek dina oyof ci moom am na ci biir nag solidarité yu ñuy def léegi da gis ku la tane ci wàll lenn ci surtout xale yi nga xam ne liggéeyaguñu bu buñ leen mënee a ci lenn ñu dimbali leen ci te dimbali nag moom nu mu ko jure ci moom ndax loolu ndigalam la boo xam ne moom la ñu sant kon nag xam ne daayira Ahmadiyya lii ay activité yu muy def yoo xamee ne luy jariñ la bari na trop xëy na bu ñu duggee ba ci biir dina am luñ ci faram waaye nag pour le moment ñu yemandeen di ci loolu rek Euh, jërëjëf euh, Baye Mansour mu mel nii wax nga ko muy wàllu njàng ci activité daayira bi la bokk waaye kër gi tamit mu borom muy Seexul Xaaji Malick mel ni lay ci loolu la ko tabaxee ba pare woo ci ndaw yi allah yaa bani haasa zaman daawtukum li ihyaa diini bil ulumi ajibu waaw yéen ndaw ñi maa ngi leen di woo ngeen ñëw dundal diine ñu ne fu ñu koy jaare mi ne nag bil ulumi mhm. ndax dundal diine te jaare woo ko ci xam-xam moom du di daanaka da koy rey rek waaye kon diine du dem kon noonu nga ko junjee am na solo ku nekk ci daayira bi war na xam ahkaamu tahaaraam euh, attee laabam attee julleem ak attee koram yoom lum mu gàtt-gàtt nit war na ko fore ci ci ci ci daayira bi waaye tamit yéen a ngi gis ci wàllu njàngale moomu nga tudd mhm. est-ce que mi ngi évoluer maanaam njàng mi mi ngi jeexitalu ci membre yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci biir daayira bi waaw mënumaa wax ni à cent pour cent mu ngi am jeexital ci ci ci ci ci membre yi ci nekk waaye mën naa wax ni ak soixante cinq pour cent mu ngi am jeexital ci ñoom ndax bu ñu jëlee ustaas bu mel ni Idrissa Diop ñëpp xam nañ ko ci wàllu xam-xam waaye at yi moom moo ko permettre muy mën a dugg ci daayira di fa joxe ay leçon dina fa jàngale fiq dina fa jàngale alquran dina fa jàngale hadis te tam dina jànge dina jàngale tam chartu tariqa di jàngale tam tariqa tijaan ndax nit lu mu nekk rek war naa xam lii lan la taalibe tijaan daa rek yor kurus hmm. loolu doyul foog nga xam taalibe Tijaan nan lay comporté woo mhm. foog nga xam tam kër Seydil Xaaji malik lan mooy seen comportement ndax boo génnee ci mbedd sax boo doxee rek ku xam kër Seydil Xaaji malik ni kii de mu yaroo ci njabootu Seydil Xaaji Malick soo xoolee ñu xam xoolin wa ni njabootu Seydil Xaaji moo ko moo fa la yaroo soo waxee nag ñëpp ni iskay loolu nag mooy li nga xamee ni ñu ngi koy def ci biir njaboot gi di ko jàngale di ko kii te nag du ñu gàggantikoo ci mbedd yàlla defal nañu Tiwaawan gële moom ku fa dem mm. ñu di la déglu rek dañ la ormal mm-hmm. waaye xale bu fa nekk mm. ku jigéen sax mm. mën na laa wax sa masala loolu nag lañu ñu sa uh, sa mbaxtal ci biir daayira ba ñun ñëpp ci lool lañu la ñu fii mu nekk tàng bu ñu àndeek moom fu waxtu jote rek ñu julli waxtu moom waaw waaw loolu nag boo fa sa kilifa dee def yow am nga royuwaay ndax yàlla yonent bi la ñu roy ko wala kum fi rasulillahi uswatun hasana mhm. waaye nag ñoom dañu teg seen tànk fa ko yonent ba tegoon moo tax mu ñuy roy ci ñoom jàppewu ñu leen yàlla nag mhm. parce que bu ñu lu yàlla daganal ñoom buñ ko bëggee euh, lu mu lu araamal ñu bëgg koo daganal ñun dañuy xam ni kat ñun du ñuy jaahil dañuy dem la nga xamee ni moom la yàlla santaane lu yàlla ara euh, euh, euh, daganal ñu ne bëgg koo araamal tam leen orma rek waaye dañuy defee la nga xamee ni moom la yàlla araamal dañ koy bàyyi loolu daal mooy li nu nekk ak ñoom te nu ngi ciy yëg sunu bopp bu baax daayira bi yépp ngi ci yëg seen bopp waa kay Baye Mansour comme ni ma ko junjee rek sànq mooy ndax ñi nga xam ne nii ñoom ñooy njaboot gi alxam masalan daaira ba daaira rek ci la ñuy jàng oustaz Idrissa ñëw jox leen bind wala ah kay am na yeneen suur yoo xam ne nii ñu ngi koy daje fu mel ni siège sociale ba euh, ak it fan mooy seen siège social ñu fay daje di fa joxante ay bind am déet waaw dama ne jamono mooy dox bu jamono yi dox nag da ngay ànd ak jamono di di dox yàlla du soppi nit ñi ñooy ndax inna allah la yuxayiru ma bi xawmin ata yuxayiru ma bi anfusihim du ne yàlla mooy soppi jamono nit ñi ñooy soppaku waaye bu bu soppaku amee am na léegi njàng moo xamee ne dinañu jàng am bis yoo xamee ne dafay joxe ay leçon ndax ñu ubbi benn euh, euh, groupe ñu tuddee ko groupe ahma ñu tuddee ko ahmadiyya national am na bés yoo xam ne ni ca lay jàngale mën a took këram sax di joxe di joxe leçon ñu xam ne tey altine la wala ajjuma day joxe leson nangam lay joxe leçon ñëpp la ñu siiw bu paree joxe leçon ba pare poser ay question nag ci lu mu mën a doon moo xam ci fiq bi la moo xam da leen di tariloo alquran moo xam ci ci tarixa bi la yooyu yëpp da koy def kenn ku ci nekk boo amee yitte rek di nga am xam-xam te doo toog ak moom du ñu dajaloo ci benn benn kii. <laughs> bu dee nag lu mel ni conférence. Mm. lañu ñu taataane woon ca daara ji bu ñu ñëwee yu demee noonu ñuy waxtaanee. ñëpp toog bu dee gàmmu tam <laughs> ku kilifa gu mel ni Baye Tamsir Sakho. Mm. moom mooy seen baay. waaye bu ngeen siiwee télé ci koor gi rek gis nga ku mel ni Alioune Diagne. def noonu ku mel ni Souleymane Ba. te yooyu yëpp ci njabootu kër gi lañu. Mm-hmm. te dañuy joxe xam-xam yooyu ci daayira yi ba daayira yi daal waxuma waxuma ni à cent pour cent waaye soixante cinq pour cent yi ñu ci bari am na lu ñu màngee ci euh, ci ci noonu nga xam ni moom la ko sëriñ bi organisé te lool la loolu la sant loolu nag nu ngi ci indi daal. alhamdulilah euh, ba tey c'est sociale bi fan la. c'est social bi kër Alaaji Mansour bii ci Gueule Tapée muy kër sëriñ Babacar Sy Mansour. fii may waxee yow nii am nañu fa réunion boo xamee ni pour daayira yi ci Sénégal ak diaspora bi yépp lu ñu fa jëlee rek tey waa Italie waa France dinañ ko yëg lu ñu fa jëlee ba tënk ko te loolu waxtaan nañ ceeg moom ba mu jox ba mu jox na ci diggal moom xalifa bi moom xalifa bi. Ah. émission bii may ñëw nii tey waxtaan naa ceeg moom. mu ne ma waaw ba ma wax ay noo yu ma jox sax. ma dolli ko ci la wax xamoon ci président yi bañ. ba ki fi nekk tey président ca présidente yi ba ki fi nekk tey di présidente ah, yooyu yëpp moom moo ma ko doon wax ci néegam may bind ndax du ma dugg lenn nag ku boo loolu nga ma doon sàkku manaan laan waaw waaw damay déglu ci moom dama kaa ah, sàkku nañ ma nàngam de war nañu faa ñu ma def nàngam waaw nga def nàngam ndax njaboot day ragal kilifaam yedd ko man man damay sàkku yàlla si yàlla toujours ni yàlla bu ma juyoog moom lépp lu may def rek naa ko def te bu ma taseeg moom te mu bañ maa yedd. dëgg la ok jërëjëf Baye Mansour mu mel ni tamit euh, junj nga ko sànq kon daayira Ahmadiyya ay ay ay branche la. nga xam ne masalan bu doon section ñu ne am na section fii Dakar section Pikine sax Rufisque ba ba Sénégal gépp daj waaye sax jéggi na Sénégal mi ngi au niveau international kon mi ngi ci national mi ngi niveau international léegi daayira bi euh, bureau bi nan la nan la composé woo xam nga daayira Ahmadiyya li ñu fa fekk ca suñu turandoo ba léegi du daayira boo xam ne da ngay toog rek moom nañu renouveler bi rek kii mooy nekk place kii fi nekk président daal moo fi nekk pour président comme toujours. xam nga daayira bi en cinquante deux bi ñu ko formé. ku ñu góor gu ñu naan Alioune Diop Macoumba moo fi nekkoon président. Alioune Diop Macoumba. Alioune Diop booba nag am na mag ñu ko encadré. ndeysaan. ku mel ni El Hadj Doro Mbeng. El Hadj euh, euh, Ibra maam la ci. Abdoulaye Diouf saar mii di ministre de la santé ndax Abdoulaye Diouf Sarr sëriñ Babacar Sy Mansour mu ngi ko jox wirdu Salatul Fatiha en 1996. ndeysaan booba mu ngi jàng. Euh, ndax kër googu lu nekk fa am ci kër maam googu El Hadj Malick a nga fa El Hadj Mansour nga fa ak Serigne Babacar ku nekk am nga fa turandoo. ba fi eh, Alioune Diop ma ku ma nekkee nag. nekk fa ak ñu mel ni góor googu ak ku mel ni euh, Doro Mbeng ak ku mel ni Alaaji Abbas Guèye booba soxna suñu naan war euh, euh, Warak Dieng moo nekkoon présidente bi Warak Dieng Alaaji Njaga Guèye gannaaw Alaaji Aline Diop Makumba moo yore présidence waaye nag ba fi Alaaji Aline Diop Makumba nekkee toom bokkoon na ci ña ko encadré woon waaye nag booba at yi demewul noonu bi mag ñi demee ba óolu ko nag ci yitteem ak pas-pasam bi ma Diop Macoumba laa génn àdduna sax sësal nañ ko ci ci ci wetam bi Alioune Diop Macoumba génne àdduna mu mu mu mu jël relève ba maanaam yan bi daal laalu suuf dëgg la laalu suuf laalu suuf alaaji njàkk ga nag hmm. nag njaga gay nag ñëpp xam nañ ko ku daan dem ziar général xam nga ko alaaji njaga gay dëgg la su alaaji Abdou Koña Masaana wax ba pare hmm. Alaaji Abbas Gueye wax ci fédération Ahmadiyya moom mu dem wax ci Ahmadiyya national ci kanamu xalifa ba Alaaji Abdul Aziz bu mu fa jógee mu def mu di ko def ci kanamu Serigne Mansour borom daara je ba bi mu génnee àdduna la ko Alaaji Amadou Gueye jël Alaaji Amadou Gueye mu nga Ngor kon moom mooy actuel président fii mu nekk mooy actuel président lu ñu wax nag ñu ngi ko wax ci kàddoom Alaaji Amadou Gueye Alaaji Amadou Gueye lu ñu wax nu ko wax ci kàddoom dëgg la bi mu tëddagul sax fu muy dem ah. nook noo noo moom nooy àndandoo ak yeneen i mag xëñ na bu koy waxtaan wi laajee dinaa ci dugg dëgg la yooyu mag sax man nga ñu si citeel ñenn waaw waaw mag ñu ko doon encadré ku ñu naan alaaji Mor Diagne sekk ci la bopp Mor Diagne Seck ak ku ñu naan alaaji Mbay Ndooy ak ku ñu naan ya rahmatullah aadama euh, Adama Adama taal moomu sax yaakaar amoon na nañu yaakaar ni bu doon dundu ah. bu fi El ji Ndiaga Gueye jógoon mooy doon nekk comme président. ndax boobu moom lañu ñu jiitaloon. boobu El Hadj Amadou Gueye coordonnateur la woon. waaw ah, loolu di am. Ah. di am. ba jëmmi tey jii ndax ñooñu daan ñooñu daan encadré eh, eh, Ndiaga Gueye. waaw ñooñu ñooñu la woon. ñoom it Amadou taal Amadou Tall eh, Adama Tall Mor Diagne Seck. Babacar Ndoye ak man Mansour Pouy mi Sénégal gépp def nañ ko tourné dañu laa yëkkatiwaat Ahmadiyya gi ndax Ahmadiyya ma su la tëdd waaye dañ leen daan dégg ci ziar général ak yooyu rek waaw waaw waaw sëñ Babacar ni leen nag da ngeen di ut dara lu ngeen jëmmal dugg leen ci réew mi dëgg amul fu nu demul ci région yi gànjool lañu ñu mujje hmm? ba ñu demee waxtaan gànjool ba pare. Hmm. ñu naan ndax mu ngi ci këram gii ci ki am ku nu ne ah nekku fi de. kooku hmm. ci île bi. waaw ñu ne mu nga ndaar dañ doon dem par noonu rek dañu dem euh, mu nekk lu nu lu nu xaw a doy doy waar ci nun ndax booba sëriñ bi fu muy dem ci wàllu gàmmu Habib Sarr lay àndal. ndeysaan waaw ba ñu demee nag ndar hmm. di dugg seen këram rek tase mu wàcc. fu ngeen kii nu wax ko fi nu jaar ci Sénégal Kaolack Mbour nangam nangam wax pare. mu ne tekk bi ak mu ne yéen yéen nattu naa leen mais seen pas-pas dëgër na xam ngeen ni gàmm gi dina am fi ñu koy defee nag moo moo ki fi noonu waaye Tamsir Sakho muy fiiri gàmmu gi te booba Tamsir Sakho hmm. eh, eh, lii sëriñ bi dox Habib Sarr ko daan dox te booba Habib Sarr ngi ci ci ci mu ngi dund di ànd ak moom ah, wallaay ndeysaan ba ñu defee tournée ba nag ah. ba ñëw di ko rendre compte hmm. muy bésu alxames alxames nuy waxtaan ak moom waxtaan ak pendant trois heures de temps ba yàgg am téléphone wu chauffeur di ñu am ku ko oo muy ja mu ne nii mun a ko fayal téléphone bi xam booy wax ak moom bukki bi ne mun waaw ja rek ci yar bi ne ah. man fekk boobu am na ku ma waxal mu ne ma ah. dafa feebar mais bu ngoonee bu réunion bi tasee ñu ah. daaw góor mi doon jottali dem uri ja daal di dégg noppam jee wax rek daaw góor def nii. man nag la ma jàpp sama xel dama ne boo demee Habib feebar bi moo kii rek ñoom ñu def daaw góor ñëw dey sëriñ bi. Ah. sëriñ bi ne nii. xam nga ñoom ci seen kii du feeñal dara muy waxtaan rek. waaw waxaat waxtaan nag presque une heure de waa ji taxaw rek. waaw fekk boobu wax nañ ko xabaar bi. pour mbooloo mi dafa nekkoon ci nit ëpp na cent mm. personnes. mu wax ba yeewu nit ñi ñii deyoo fii nii nii ba ak mu ne waaw. man dafa am gan ñu may xaar sax ñoo moom lañu ma doon ooyee nii léegi ba nit ñi wàcc mu doon ma dablu pour oo ma. waaw fekk man itam jul jël taxi ba dem. <laughs> dama àgg mbaaw rek am ñu ma téléphoné di ma questionné ci Habib. ma téléphoné daal ci gàttal daal. ba ñu xamal ne ma Habib moo noppaloo oh. muy alxames boobu de. ndax Habib fi nekkoon. waaw. ma ni kon xanaa kii dafa gisoon loolu ne abi du fekkee gàmmu bi. wallaay ah, ah, muy loo xamee ni nag. noonu la présidence gi ñëwee ci El Hadj Amadou Gueye. waaw léegi nag ki fi nekk comme présidente nationale. Hmm. du at yi. waaw waaye pas-pas fa ak jikko jë muy ajaratu Seynabou Lo. Ah, Seynabou Lo. waaw Lo waaw. ab Lo wendey. mu dëkk Tëngéej gii. ah macha allah ndax moo fi nekkoon. waaw. am mag ñu baax ñu ko encadré mel ni yaa caane fa fay yaayu Ablaye Bio Maxtaar waaw ak yaa jeewu si ndeysaan bi waraag jéeg génne àdduna jeewu si moo yor présidente bi waaw yor na ko ay at ay at di soxna su amoon pas-pas ku dëgër mm. ba mu fa jógee nag yaa caane fay mu nekk présidente bi Ah, actuel président déedéet moo nekk ah, présidente bi bi mu génne mooy yaayu Abdoulaye Diop Mokhtar waaw bi mu génnee adduna nag la Seynabou Lo mii nekk ah, présidente waaw nekk na ko nag fii mu nekk léegi mu mat dem na dix ans daal ñu ngi ko waaw macha allah gën a jëm kanam yàlla gën a nekk nag moom itam wax dëgg yàlla taxaw taxawaayu mag ña mhm. di def kem tolaayu kàttanam waaw alhamdulilah ahmad yi eh, da eh, daayira boo xamee ne ay mbokk lañu parce que am na xale yu ndaw yoo xamee ni dañ ci nekkoon di daw di kii ñooy sol sol tenue du te tenue werte yi Assane Thiaw moom mu di kii ah. daana dem ba yàgg ma ne ko Assane ah. góorgóorlu rek lii ci seen loxo lay mujje dëgg la mais ba tabaarakallaahu loxo bi seet nag muy liggéey di ci kii léeg-léeg sax ñu ànd ak sëriñ bi ba yàgg rek oto bi mu ngi dugg ci oto oto bi day daw rek mu ubbi oto bi rek tànk loolu yëpp pas-pas la te moom moonu xiirtal ci loolu muy kilifa goo xamee ni daf nu jàpp comme nawle sëñ Babacar Mansour day teg kifinam ni dugal loxoom ni dugal leen seen loxo ñuy jóge fii di dem Gàmbi xam ne diggante e, Fatick ak Karang lu oto war a daw une heure de temps booba tali bi na ba dinañ ko daw cinq heures de temps di daanu fi ñu ne ko jël avion mu ne coono bi ngeen di daj moom laay daj toujours noonu lay ànd ak ñun ba ni tali bi baaxee ba bi ñuy dem Casamance nii ñu ne ko dañu la réserver bu avion mu ne ci bato bi ngeen dugg ci lay dugg moom noonu bokk bato bi waaw def lu nekk nag waaw tabaarakallaahu bu amee kilifa nag muy def noonu yow xaw ma nooy looy defati ah, yàlla def man xaw ma kan nag waaye man de sañu ma wax lu ma wax loowul du ko xalaat du ma ko def fi mu nekk bu dara xewee. waaw ma xam ni farata la bu fi newoon mu dem fa ma dem fa waaye bu may génn rek téléphoné ko ni ko jaar naa place sangam kat nangam wax naa fa nangam wala def naa fa nangam. mu ne may waroon nga cee yokk nangam ak nangam. ndax damay bañ ku ma jiit ci moom ni ko Mansour dem na fenn wax na nàngam ci sa tur te fekk waxuma ko. fekk waxuma ko. daayira bi tamit daayira fu ñu ko waxee xam naa foofu laay kii soog di ñëw sama ñetteel question sax dina am euh, ay mag. dana am cellule li ñuy wax euh, xaw ma cellule féminine muy jigéen ñi ñooñu waaye it dana am ndaw ñi tamit xëy na it mën na ne dana am daayira kade bi mm-hmm. waa donc yooyu noonu yëpp tamit nan ngeen leen di coordonner ñoom seen biir am na ci ndaw am na cellule féminine am na ci euh, euh, góor ñi ni ñuy ni ñu defee seen cellule am na même même xale yu góor yi sax am nañu ustaas yu leen di jàngal ci seen biir am nañ ustaas te nag ñoo jigéen ñi ñoo bokk benn waaye may lépp nag mu ngi nekk ci kilifte fa Assane Thiam ndax boo ñëwee ci daayira bi dangay ngay da ngay yéemu da ngay gis jigéen ñi ci ci ci ci siyeer yi gis góor ñi ci siyeer yi ndën loo ci dem rek doo xamee ndax lii ku góor a togg wala ku jigéen amuñu complexe ci dara nag dañuy def seen tarbiye ci ci anam boo xamee ni léeg bu ñu waxee sax ñu ne ah mag ñu day ni yéen yéen lu ngeen kii rek nu nu nu dem ci nu ànd ceeg yéen may dellu gannaaw tuuti da xamal ni man 1951 la laa dem ci sama loxo turandoo mu yor ma nag ndax ba may jóge ci sama kër waajur pap alaaji mbay moo ma jël si alaaji mbay moo jur euh, Abdou Aziz Mam Fama mi ci TFM waaw ak ku ñu naan papa Alaaji jaañ waaw Alaaji Diagne moo jur Maodo jaañ ak Mansour Diagne ñu ko ci kër sëñ mbay Mansour ñoo ma jël mu xaw a timise nu jaar tëngee ci kër ji Mbay Basin keroog fa laa fanaan dal di door a dem nag waaye ci gàttal daal moom bi ma jëlee daf ma uuf xam naa am na yu mu def ci man kii ma ba pare yëkkatiwaat ma jox jox ma doomam. sa tooma ah, ma Mansour. waaw waaw moom ma yëkkatiwaat dénk man ci ndénkaane laa nekk. ci ci ci waaw waaw waaw waaw muy ku baax. ku ma bëgg ku may déglu nag. ku may déglu. waaw wallahi eh, njabootam gépp xam loolu. njabootam gépp xam loolu Tiwaawoon gépp xam loolu tam. dëgg la waaw waaw. mas naa ko nettali sëñ Mansour si xam nga borom daara ji. sama kifinukaay la woon ndax dañu bokk ci mbaaw ma ñëw ak waa mbaaw yi muy waxtaan Maodo Diop di ko jot ba Maodo Diop di ko Mansour Pouye ne la ñëw mu ne nañ arrêté bi mu ñëw daf ma xëcc ba may daan ci kaw mu ne waa mbaaw fan la dëkk <laughs> ñu ne ko mbaaw fu sama yaay dëkk mu ne ko waaw mu ne kii maa moom nu ñu def mu ne ko ah yéen a bokk turandoo de mu ne waaye gëw ma eh. sëriñ bay rek la gëm <laughs> sëriñ bay rek la gëm ak mbaax gi ndeysaan ma ne ko ah ginaar ak ak i neenam yëpp de am nañu boroom mu ne kuy ginaar mu ne ko sëriñ de day taxaw taxawaayu ginaar ma taxaw taxawaayu nen mu ne xanaa kon maa leen moom ma ne ko ay yaay kilifa gi mu ree ba sonn li ma demee wax ko sëriñ sëriñ daal di ree xam nga xaritam la woon nag mu a ah sëñ Mansour sëñ Mansour kilifa gu baax la ba tax nag noonu laa nekke ak moom noonu laa nekke moom muy ku baax di ku yiw te bëggul ku koy wax sax bëggul ku koy wax muy koo xamee ni ñun dañu koy ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér rek te nu bokk ko ak moom nag bokk ko ak moom bokk ko ak jullit yëpp parce que sagu kër Seydi Aji Malick ci lay dox nee na ma te wax na ko ñu bari ñu dee ko mu ne képp koo xamee ne njabootu Seydi Aji nga rek sama sëriñ bi moo xam ku góor moo xam ku jigéen du lu muy wax ci làmmiñam mais du koy jëfante ak ñoom loolu daal Euh, mooy li nga xamee ne ni la daayira bi taxawee waaye nag daayira bi moom wax toujours ma wax ko gaa ñi man leen kuy jëf ci dayire bi nanga baxel ba sëriñ bi ndax mu mu ngi nu mu rek lu ci xew yëg na ko lu ci nit def yëg na ko lu ci nit def tey defawul dina la oo wax wax ak waaw moo tax na nee naa leen nañ koy baxel nañ koy baxel ndax dina nu toog mu toogandoog nun te du nu gis ci waaye bu nanga amee mu ne ay eh, defoon ngeen nangam defoon ngeen nangam <laughs> tabarakallahu fi waaw mu ngi topp njabootam mu njaboot gi ndax daayira ahmadiya tey ay asatisam maanaam ustaas yi nga xam ne ñoom la am ñu fay jàngale ci biir daayira bi hmm. eh, ñi ngi tamit ne kër gi kat eh, kër Cheikh El Hadji hmm. ngi yaatal liggéey bi hmm. masalan ñu naa ah, kii kat ustaas diw kër sëñ Abdou Aziz la bokk gaa sëñ Abdou mooy kilifaam mhm. wala diw day sëñ Mansour mooy kilifaam mhm. ñu nangoo yaatlante boobu mhm. di demalante noonu pour xam ne kër gi yëpp benn la benn kilifteef rek moo fay dox mu Seexul Xaaji Malick te ka fa nekk tey Seexul Xaaji Malick mooy sëñ Babacar Si Mansour ndax u yi tamit ñu ngi jéem a fédéré loolu bennoo boobu sëñ Abdul Aziz Al Amin yal na yàlla dool leer kilifa gu baax la woon kilifa gu yaatal la woon kilifa ndax loolu commencé na ko te loolu mu ngee dox ci biir ustaas yi ndax ñoom ñii dañuy roofoo ñoom it Mouhamed Seck ci xale yi la nga xam ne ni day eh, nekk ci jeunes yi waaye day borom xam-xam la jàng te mu ngi te moom bari na lu muy lu muy jëflanteeg ustaas yooyu yëpp dafa dafa ma koy wax ñu ngi dugalante ñu ngi xamante bu baax a baax a baax ndax kër Seydi Aji Malick noonu la tëddee te loolu nag mooy sagu kër gi loolu mooy sagu kër gi Euh, amuñ ci frontière surtout man nag awma frontière ci ci ci ci ci ci foofu ci Tivaouane noonu la ñuy jëflante parce que ñoom ñëpp léeg-léeg ñu daje ci tànt nga toog fee di xool rek xam kër gi ni muy duuree xam ne ñoom ñëpp benn lañu loolu nag ñun dañ ci ñaan yàlla rek yal na yàlla saxal loolu yal na yàlla saxal loolu wax dëgg yàlla sunu xel dal na waaye sunu yaakaar yokku na nag waaw waaw waaw eh, jërëjëf eh, Mawlaay Abdul Aziz Al Amine moo may wirde 1997. Mm-hmm. ndeysaan ci même salle tamit bi ma maye woon wirde bi ñuy mujj gisee 2017 tamit ci même salle boobu lañ mujj gisante. Mm-hmm. wallaay yal na yàlla yokk leeram mm-hmm. ci barke Yonent sallallahu alayhi naa sa looy tàggoo. sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine démb rek maa ngi koy wax ci mbaaw sama sët Pape Samba Diop. mu xaddam ah, xam nga may may ndijaayu yaayam. Ah. du def lu ma yëgul. du wax lu ma yegul même bu ñu ko ooyee télévision sax foog mu ne ma maam nangam nangam naam sëñ Abdou ak cër bi ko yàlla jox mu jóge Tiwaawoon ñëw di installé xale bi ci mbaawu jol mbubaam jox ko wax ak moom loo xamee ne nag ñoom ñoom rek ñoo ko xam ak yàlla ma ni ko ko ku la xooloon dix ans ci gannaaw hmm. bëgg laa xoole noonu ak hmm, lii nga xam ne ku jubboog boroomam <laughs> moo am lu mu def ci yow ah, ñu di kay ñaanal yàlla nag Eh, di la gërëm bu baax yow Daouda di la sant di la ñaanal yalla di ñaan sa tarbiye bi ngay def ci kër Seydi El Hadji Malick dég dég lañ ci amoon mais dañuy toog fële di observer di la gis coono yi ni ngay def parce que booy sonn sax doo ko yëg <laughs> parce que bi de léeg-léeg ñu ne ko daal nii muy def ne mu kii yéenu ko yërëm mais buy sonn sax du ko naa ne booy def ci sa tarbiye noonu laa gisee ngeen di ko defal ma di ci ma du ma leen ci gërëm nag mais dama leen ci ñaanal yàlla yàlla na leen ci yàlla saxal na leen ci yàlla saxal di dellu nag di ñaanal euh, Serigne Fata Sarr di ko gërëm di ko taxaw di ko di ko ñaanal yàlla teg ko ca ñaanu kilifa yi parce que lii lépp ci ñaan gu nangu la di ko ñaanal nag yàlla na yàlla gën a yokku ba bi moom am na fi waaye yal na yàlla gën a yaatal matériel beeg yooyu yëpp muy participation ci kër maamam Seydi Hadji Malick ndax lii muy def fii kat hmm? caaxaan defu ko de ñaan gu nangoo tax mu di mu ko def stade bi feesal leen hmm. am na yu ma doon dégg sax ci dernier ki finam bii ci mbuur hmm. am ñu ci sànni kàddu man ne déedéet gis nga gis nga boo jiitoo rek boo jiitoo rek am ñu top sa ginnaaw di sànni xeer kon nag nag continuer ci loolu rek di ko xamal ni ñun de bég nañ ci moom ñu koy ñaanal yàlla nag di ko teg ci ñaanu kilifa yooyu ndax xaas moom boo ko xesee ba am rek am nga ko ndax sëriñ bi dafa mas a wax war na fi mat vingt ans ma tase nu ànd boobu abi saara gee dund am conférence bu ñu doon def ca njangal moom sëñ Babacar Mansour ma ànd ak samay yeneen i jarbaat yooyu ma daal ni ñaanal leen daal ko waaye ñaanal ma nag man ñaanu xaas mu ne ma yow xaas moo la fi indi <laughs> soo amul woon xaas di nga ñëw fii tabaarakallahu fii di leen gërëm di gërëm nag technicien bi sëñ Mor ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla barkeel sa liggéey eh, bare amul solo barkeel rek mu am solo yàlla na yàlla barkeel sa liggéey yàlla na yàlla yokku leen ba ngeen am seen télévision bu mag ngeen ba ndax loo gis rek moom njëlbeen gi njëlbeen am solo mucc rek moo am solo yàlla na yàlla méngoo seen mbir ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa lool maa ngi di sant di leen ñaanal yàlla jërëjëf eh, Baye Mansour macha allah doy lu ñu wax dëgg yàlla ci waxtaan wi waaye xam sa ak tënk-tënk jamono eh, rek moo tax eh, ñu ne nañu nañ la teel a yeewi waaye incha allah rabbi ñu ngi sàkkuwaat yeneen di daje gën a mottaliwaat waxtaan wi am na solo lool lool lool lool te it def nga historique bu am solo ci wàllu ahmadiya di la yóbbante tamit nuyu ak ziar ci Pape Samba Mamadou nga nuyu ñu ko lu bëree bëri <laughs> ni ko ndongaa mu ngi koy nuyu Daoud Camara mm-hmm. waaye sëñ Alsaan caw tamit moom it di borom yitte di borom taxawaay moom it nag ñu ko nuyu lu bëree bëree bëri daal ñu koy gërëm bu baax di ko sant moom it it yàlla dogal na suñu jokkoo ak Baye Mansour mii ci moom Alsaan Thiaw la jaaree mu ñu bokk nekk daara maam Maodo moom it di benn groupe whatsapp bu am solo boo xam ne ni contribution yu pertinent euh, yu pertinente la fa Alassane Thiaw di def kon Baye Mansour yal na yàlla doole yokk seen sutura amiin amiin baaxi rek ci baatin euh, li ngeen yéene ci xadara bi yal na yàlla defal leen ci lu kawe seen amiin ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon bi TV tey lii lañ leen indiloon ci yóbbalu daara ji tey lii la doon yóbbuloo dem ba mbaaw fekk fa suñu Baye Mansour ànd ak mu ci waxtaan wi mu xalifa Ababacar Mansour salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.